السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أحمد المختار خليفة الشيخ محمد المصطفى خليفة خديم المصطفى عليه الصلاة والسلام نونغي لي نيو دي لا زياره di la ndokkeel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 Sop Cheikh Hamdi Mustafa. Sopu gaa yu baax yépp fii kulli zamanin wa makan ño andando tew fi sa kanam ngir loli nga xamne mo moo ne ci seeni xol ñu feñal ko ni ci sa kanam ndax Cheikh mustafa dene ciofel bu deggo ñokay woné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 بزاك فالمعتا كفافا يكتفي دقنا كمنان الحب خير ما لشخص وهيبا ولو كمثل ملء الارض ذهبا دقنا كمنان ديني حب الله والرسول وحب حزبه ونيل تسولي دقنا كمنان ديني ديني حب الله والمشفع مستغنيا بسره عن مدفعي دقنا كمنان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 kër sëriñ saalihu ahlu sidqi fi lmahabati wal walaayi kër sëriñ ibrahima hafsatu almuhsinina kër sëriñ xaadim wal muxlisina kër sëriñ falilu attaawun fi sabilillahi bu kër sëriñ ahmadul muxtaar abnaa u suyuux ña nga ne di doomi seex ya ñi sëñ tubaa joxoon ay ndomba jëwriñal leen ngir ñu jar la jar njaboot gi ñu ngi nii ci sa gannaaw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 momit santane nañ ko magal di worlu di ci def lu ay teranga di ci lo bo demé ci masaalikal jinan day téré yi señ Bamba waxna ci lu bare bare ci bis bi tay kon bis la bo xamné buñ wara fonk lol la buñ ko woté ñepp wara wusi wërta des bis la bo xamné ngeenel yu bari wacc ak li ci aji ci ay ngeenel ak i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 njabootuk Cheikh Moustapha góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo dellusiwaat ci bis bu sell bii sukk fi sa kanam ni ñu ko baaxoo daan ko defe ci bis bii muy mbooleem bunti këri Cheikh Moustapha yi yépp ak mboolem cheikh yi nga xam ne ñoo aju ci kër Cheikh Moustapha yi yépp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 maa moom la woon ak sëñ xabban bay sëriñ ba Bachirou Sall imaam moo na waxoon ne xanaa xamul leen ne bëgg-bëggu Cheikh Moustapha bi faw moom waaye ñee yàlla dogal nag muy amee ci ñoom ñi amuk defaru lañuy doon ñu am tawféex la ñu doon ñu am tawféex nag noonu la waxee sax dafa ne ñu am tawféex la ñu doon kon tawféex jooju bëgg nañ nga ñaanalu Mbàkke ba nu am ko ci tawféex jooju Cheikh Moustapha digge ci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 Nonit it nan fas yéene di dakku bëgg-bëggam no ngi sant yalla bu baax nak ci eh, jotaay bi eh, di wax Sri bi ñuy Sri serigne ahmadul maxtaar serigne ahmadou no ngi lay ñaan nga ñaanal nu suñu borom nongul nu suñu siyaré bu nu ko nongulee ba nappi nak mbolo mi nit ñu fas ci siyaré bi moy sax yag fi lool ak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 nee na daal nag mi ngi leen di soññaat ci ngeen fonk diine jii di diine islaam muy seen diine. yoonu ngeen bokk. nee na ndax yoonu murid yi nga xam ne ci la ne. lislaam a nee na lislaam a taxaw. diglewul dara lu mooy lislaam. nee na lislaam la rek ci taxaw nee na sëriñ bi diglewul dara dara lu dul islaam. ci lislaam la nekkoon. nee na sëriñ Bamba Xadimul Moustapha ci islaam la nekkoon. diiru dundam. nee na giiru dundam gépp jeexal na ko ci islaam.